يا رمضان حنا صوامك يا رمضان نور علينا يا رمضان يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان أي صنة لم يرى يفوت لم يرى يقوم صنة ما يلا بقى أنا ما دفعت لم يرى الحمد لله إنك نجم loolu la bëree xaaral ñu dem nii rek dem àggale fee noppale ko ndax naaj daa tàng. xam naa bala ma koy paase ba pare naataan soxna dina ma jàppale Nam na hala. Dom da yang jam. Nam na nam dom bul do. Nam fofu. Yang jam. Yang jam ba. Ka ba. Nam na de. Naka liggey bi. Gis na la gis. Ma la. Toga. Naka liggey. Yang jam yo. liggéey bàyyi nii rek. yow kon paa bi nga liggéey. waaw moom laa liggéey cam ñuul nii cam sol garaam bu bula bi rek. ay jaara bula bi rek cam tilim. ay jaara cam ñuul nii ca gaat moom ngay liggéey. paa nga paa boobu. waaw paa moo gën a réew na ci koñ. ay jaa paa dof la. leen da laa lay xamal xam nga moo ko yéene. Hmm. jànk bu ñëw lekk ko ba mu set moo jabar. ay waay ku defee mu bàyyi jaw rek. yow sa xeetu mbaraan ba ngi nii ci paa yi laa nekk fi mu toll nii. paa yee ma yor xale góor yi. dañ lay fooy wàcc la <laughs> ma sañoon daal. Hmm. jabaram yi moom kenn xamul muy nduróol ma sañoon daal nga jàpp ci paa bi waaye jabar mu sax jabaram dem feneen doom di góor gi nag boo ko boo ko sax xool kooku moom moom rek naa gën a bañ ci papa baax na man la xoolal amaguma sax une semaine bu ma yàqal de li nga may ma liggéey nii dafa baaxu bëgg a dee bu ma yàqal ngir yàlla yonente bi loolu la may defalal billaahi ah kon ma ko gisee ah? kon baax na man dama yéene sama laa la yéene ca paa yi damaa gis nañu ma baax waaw ah, yaa ci paa yi nii ah. ca paa yi ñoo lay yor yor seen waa kër. xottal la yére yu baax gis ngeen yoo xamante ne ay ëpp na. <laughs> daal yoo xamante ne bu ma sañoon nag paa yi nga maraan ko. <laughs> wala lii nga wax nii loolu sax laay def. Mm. bàyyi jóob rek. Mm. maa ko naa rek samay loxo. Mm. maa ko nar a jox ko ah, dig na ma sax xaalis yu bëri pour correcté dana. ah waaw oui ma néegam nag mu jox ma ko man nag damaa ba xaw a bàyyi liggéey kër ga maa ngi leen. waaw ah, sa tàggu bi gën a gaaw. bàyyi rek ma dem. ay doom eh, eh, eh, taxawal. yow nag mami ku ma bett nga ndax yërmande moo tax ma dugal la ci kër gii ngir nga jàppale man te xam ne sama kër amul liggéey yow nag awma may wax ak yow kër goo tasagul fii amut bu doon maa yow nag nga di wuti jëkkër di dem sëyi lambar lambari tas nga kër jàmbur yi waaye sama kër moom sama kër ci ngay dëppee jógal ci biti car maa bañ sebet ndax weñ man sama kër na njëkk tay na mujj tay nga fi foofu laay mag yow yow mami dugal bett nga ba nga ñëw ci kër gi yërmande tax ma duggal la apa bukan kena yuk Ada kena yuk? Hah? soxna soxna boobu dóor la ma xew ah sama xarit bu ma seet fii ñuy waxtaan fii mu dàq sa xarit bu la seet si la ñuy nab nab nab nab nab nab nab bul jooy bul jooy bul jooy bëggatuma dégg oxo rek bàyyi maa ngi moom kon yow yaa ngi ba tey noppee ah kon yaa ko man mii maa ko nga ma ko lan moo tax ma door ko ngay laaj. lan moo tax nga door ko. kër gi yërmande moo tax ma dugal ko dama koo farax jël ko mu may liggéeyal. léegi mu ah, invité benn xaritam ma dégg mu kóopaloo ko xaritam bi yow da lay fuqatee ji man pour mën a génn kër kër gi nag xale ma ma nu koy waxee di sax magam may tëj. yaa yaa yaa juum. danga may déglu ma wax la kër gii li ma fi dugal génne mu te déglu ko sama morom. la maanaam lan moo tax muy jooy. nijaay man maa ko ni réer lu mu talaata nokk ko bu mu dugul nag te bu ko defaatee naa ko ñus. da nga ko talaata maa ko da nga doon. maa ko nokk ba mu dugul nijaay. léegi lan lan lan maanaam lan lan mooy affaire bi. maa yow lan nga wax sa xarit ba mu doon. ma toog ak moom fii bay waxtaan daal ñëw xam mu mu dóor ma <laughs> te yow sax wax ji day bëgg day bëgg miti ci man jógal nga dugg si biir dama soxla sama ni foofu laa yem. waroon koo dóor ko sa dóor loolu ko sa dóor dama dama rek mu ñëw dama wala jënd dama dinaa war jënd yow ñu lay dóor ah. jërëjëf yaa ngi ko fi fàtte jërëjëf. jërëjëf jërëjëf yére yi rek jërëjëf yére yi jërëjëf gis nañ sa liggéey si kër gi la yokkal sa sa sa mandat naa la yokkal yow. loolu nag moom loolu nga wax wàllum salaire boobu léegi lan moo tax. lan moo tax. dañ koy yokkal sa yoon kay. wax ji wax ji wax ji wax ji li may lem lema yëpp dafa jeex dama koy takk ñaareel waaw. lan moo tax